Daawdu saw ñu ñëw nag waxal ñu lenn ci maanaam changement ndaw ñi lan moo ko waral kon loolu la ñu war a waxtaanee tey waaye mbokk yi bu leen fàtte tamit bës seen cloche de notification pour ngeen abonné lépp loo xam ne day xew ci biir vingt 28 pro ngeen mën ko di ko seetaan kon bu ko defee dañuy jox oustaz Cheikh mu nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñooy faral di ko seetaan saa su ne kon oustaz bisimilah. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil yi ñu ngi leen di ku nekk seeni tur sant ñu ñuy seetaan si biir réew meeg si bitim réew di nuyoo bu ñu bokk boole di si invitation bi di nuyu waa euh, bi ñuy tuddee 28 pro di wax di kontaan bu baax si invitation bi incha allah. waaw solo kon dañuy jox suñ beneen invité. Oustaz Daouda Sow nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo lay faral di la seetaan kon Daouda bismillah a'uuzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin munawir absaari alaarifin bi nuuri almaarifati walyaqin summa salaatu wassalaamu ala asrafi alxalq muhammadun ibnu abdillahi sirrul wujudi ruuxul wujud lawlaahu maa kaana alwujud wa lam yakun lana rukun wa sujud wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi diin yéen mbokk internet yi ñu ngi leen di ziyaara di leen nuyu kenn ku nekk sa ak sa sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw macha allah oustaz Daouda saw ci nuyoo bi am na solo kon bu ko defee dañuy jëkkanteek waxtu wi rek daal di dugg ci suñu émission muy xalaatu ndaw ñi waaye ba tey tamit bu leen fàttee abonné pour ngeen mën a seetaan lépp loo xam ni day xew si biir 28 pro kon bu ko defee dañuy jox oustaz Cheikh Euh, question bi ñu koy posé mooy Oustaz dañoo gis ni ndaw léegi yi ak ndaw ñu jëkk ña seen taxayuraat maanaam changement dafa am ci seen biir dañoo xamul nag changement bi lan moo ko waral ndax parent yi ñoom dañoo yëratul ni ñu war a yare wala tamit fët bi ci xale yi la kon Oustaz loolu lañ bëggoon xam lan moo ko waral. alhamdulilah ala kulli xaal euh, di sant yàlla waat di kontaan bu baax. si question bi nga xam ne laaj nga muy question boo xam ne bu pertinente si jamono ba ko a laajee ndax ku am seetlu te am gis-gis xool jamono tey fu mu toll euh, si wàllu mbonte si bu fekkee si ñu ma ko ñemee wax ak si jukko boo xamante ne xàmmee wuñ ko woon dembu si wàll jukko boo xamante ne Sénégal bi sénégalais da doon dund euh, si domaine wàllu aada laa tamay wax diine ak wàllu cosaan loolu boo gisee gars yi dañoo amat beneen comportement boo xamante ne euh, dañ koo ajouté jëlee ko si pays occidentaux yi tey boo bëggee comparé tey jamono boobu nag ak jamono bi maanaam di nga defar tuuti si gestu xool ndax li nga xamante ne moo indi loolu bokk na si si euh, yàqute si jëmee si société bii ñuy dund buñ ci mën a cité tey si wàll technologie bi nga xamante ne tey moo lembee àdduna bi yëpp si crise mondiale bi nga xamante ne si wàllu jikko la nga xam ne ñëpp a ngi koy jooy te noppeeguñ ko kon loolu day si bokk moom joué na si rôle boo xamante bu rey muy wàllu internet te mu waxee internet ak ak global lépp laa si namm bokk na tamit lu ànd si loolu te bu njëkk mag yi fi nekkoon xamuñu woon loolu maanaam da ngay toog ba am 40 ans doo mës a gis sax oto boo xamante ne mu ngi daw ndax milieu bi ngay dund moo lay permettre yoo xamoo loolu ndax àll ba ngay xam ba mag si loolu. ñaare bi doo am benn temps bi nga xam ne koy part pour mën a fréquenter ñenn ñoo xamante lay influencer pour nga am benn jikko boo xamante ne yaree wuñ la ko loolu bokk na tey si xale yi si ku nekk euh, fu la neex yandu si jigéen ñi fu neex yendu si góor yi si liberté boobu nag bi nga xamante ne ku nekk am na ko si ñun jamono tey loolu bokk na tey lu andi si yàkkute bu rëy bi ñu nekkee te loolu nag euh, pour mën koo régler mooy delluwaat si njàngale yonent muy islam bi nga xamante ne yonent bi alayhi salaam yonent bi yàlla da ko yónni ne euh, innama bu'istu li utammima maqaarima al axlaaq yàlla dafa ma bind pour ma ñëw mottali te daa ngi jikko jikko bu fekkoon dañ ko doon tabax mboolem prophète yu fi jiitu woon yëpp dañ ko ñëw di ko tabax mais yonent bi alayhi dafa ñëw pour mottali ko te pour ñu mën a am éducation boo xamante ne dafay nekk éducation bu déppoog suñu aada déppoog suñu cosaan déppoog tamit suñu diine fekk ñu delluwaat si jàngaleem ndax moom mooy jàngalekat bu mag a mag bi te ñëpp ñoo xamante ne mutafakkirina yeeg ak ñi nga xamante ne albaaxisina ñëpp d'accord nañ yonent bi sallam mooy ki nga xamante ne mooy delluwaay bi rek pour ñu mën a am stabilité. waaw macha allah oustaz Cheikh li nga wax am na solo kon buñ jàngatee ci li nga wax mooy kon ndaw ñi faaw ñu dellu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ñu digaloon wala lim fi bàyyi woon pour ñu mën a defaraat suñu àdduna. kon bu ko defee ñu ngi lay jaajëfal bu baax dañuy jox Oustaz Daouda Sow mu wax ñu naka la gisee loolu kon Oustaz bisimilah. waaw bisimilah rahmaani rahim ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax waaw su fekkee ne wàllu ndaw yi moom daanaka waajur yi am nañ si part de responsabilité tamit état tamit moom am na leneen lu mu si war a taxaw. ndax soo xoolee maanaam ni ñuy dundee léegi ak euh, suñu mag ñi niñ doon dundee dafa mel ne dafa am différence ñun dafa mel ne dafa am leneen lu ñuy indil ñu koy dund daanaka ñun xamuñu ko woon waaye léegi dafa mel ne dañ kaa gis ñun ba léegi moom kese moo fi nekk ndax daanaka ndaw bu njëkk maanaam amul woon soi maanaam kilifa lay yor daanaka léegi nag kenn amul kilifa ku nekk dañ laa may sa liberté totale wala yu bari da nga siy dugg parce que daanaka léegi waajur yi dañ lay jàppee ni yaa leen gën a muus yow xam nga yu bees ak yooyu ñu jiital la yow tamit nga demee sa bànneexu bàkkan ba mu dugal la si yenn yi ndax soo xoolee si année yu yàggul yi loolu amul woon internet bi nag da see lu bëree bëri tax ku nekk yaa ngi dox ak sa téléphone lu la neex nga def ci maanaam say waajur duñ jën si loo nekk duñ xool ci lan ngay dox loolu bokk na li ko ci waral te tamit maanaam nit danga war a am kersa ndax kersa soo ko amul maanaam dootoo faale ci kenn lu la neex rek ngay def te yonent bi nee na maanaam ko amul kersa rek dafa lu neex te beneen waykat dinaan laa xayra fi rajulin xurrin bila adabin wa in kaana mansuuban ila al ilmi arabi maanaam su fekkee ne nit ki moom amul kersa dara dara dara maanaam nee na yow moom dara mbaax nekkul ci yow même su fekkee ne dangaa bokk si famille bu riis ak famille bu am famille foo mën a bokk tamit du tee yow loolu amul njariñ loolu moo tax daanaka yar bi daal des na joué na si lu bari dafa manqué daal te liberté bi dafa yaatu lool te loolu loolu warul woon am comme Seexul Xadim ni mu ko waxee maanaam ku amul sëriñ rek loolu sëriñ moom mun nañ kaa jàppee lu ne maanaam mooy yarkat mais sa yow ajur mën nañ nekk se yarkat mën nañ laa yar maanaam ko amul sëriñ rek yow maanaam seytaane moom mu dugg la dafa yomb lool te temps yi dafa mel ne su dee si occidental yi dañoo indil seen dund ñu siy naar yi dañoo indil seen dund ñu siy dundu ñun daal xamatuñ léegi li ñu bàyyi woon anamu dafa mel li ñu bàyyi woon baaxul ba ñu bàyyi ko di jàpp si ñeneen xam naa ni foofu la si siy yem bis kanam incha allah. waaw macha li nga joxe am na solo. kon ñu mel ni euh, li nga wax buñ ci defee jàngat bu ndaw mooy nouvelle technologie bi dafay yàq jeunesse bi ndax par rapport ak bu njëkk amu woon kon nag euh, moo tax ba parent yi amatuñ temps sax pour di contrôler seen njaboot kon bokk na ci loolu tamit nga xam ni moom mooy def changement ci jeunes yi par rapport ak jeunes yi jëkk ya ndax bu njëkk mag ñi ñoom dañoo boole woon seen lépp mu doon benn maanaam yenente jàmm mais léegi dañoo gis ni léegi da ngay dund ku ne ak sa bopp kon dañ lay jaajëfal bu baax kon bu ko defee dañuy laaj oustaz Cheikh maanaam lañ lañ war a def pour changement bi mën a wàññeeku kon oustaz bismillah. Euh, jërëjëf euh, di kontaanaat bu baax a baax sëñ Alassane am na solo euh, pour lu ma wax rek wax naa ko junj ko naa ko ci sama wax bi ma koy débuté maanaam solution bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ndax. Euh, yàlla dafa koo teg mu nekk suñu exemplaire nga xamante ne jullit lépp lu muy def daf ko war a xool si ki nga xamante moom la yàlla doyloon ba yónni ko si ñun muy Muhammad alayhi salaatu wasalaam te yàlla dafa waxoon ne wa in tutiuhu tahtadu boo leen ko toppee da ngeen di jub te doomu aadama mënta am njub boo xamante dañ koy gërëm muy njubam boobu am ko àdduna am ko àllaaxira lu mu nekk dafa nekk koo xam ne dafa concentré wu si njàngale yonent bi nga xamante moom la jàngale te képp koo fi mun munti wax ci jamono bi ñu koy topp moo xam sëriñ lañ koy tuddee moo xam waliwu yàlla lañ koy tuddee moo xam homme politique lañ koy tuddee bu fekkee amul jikko yoo xamante dañu ko nekk jikko yu ñu gërëm la te jikko yooyu bu ñu ko euh, xoolee constaté ko déppale ko njàngale yonent bi sallam mu deppoo kooku la moo jar a topp laa bëgg a wax te kooku tamit lañu war a jox suñ état bi nga xamante ne tey jamono bi dafa am benn crise bu si nekk te système bi mu nekk lu ñu war a changer si wàllu éducation tey boo ko jëlee yaa ngi dégg tey euh, à l'époque bu fekkee sax euh, l'année yi passée yàgg na fi mais dafay door a fes muy ñu ne système l'éducation bi tey dañ ci war a dugal lu ñuy tuddee homosexuel te loolu buñ ko si dugalee si suñu jamono suñ xale yi kon xale yi nga xamante ni ñooy ñëw si jamono yi nga xam ne yegg seeguñ si kon dama ne société sénégalaise bi dootul mën a baax ndax muy le dirigeant yi nga xam ne ñoo ko war a dirigeant ñoo ko war a diriger wala relevé wat lu mu war a système bi woon lu mu war a demee bu fekkee danoo génnee si benn école boo xamante ne lu ñu leen jàngalee ak idéologie yu ñu am dafa wuuteeg idéologie bi yonent bi sallam tegoon am idéologie yi nga xamante ne ñu ay jamono boobu lislaam ñëwagul ci ñu nekkoon fii di doon incarné benn jikko boo xamante ne dafa dañ ko gëm ñu bëgg leen si beneen jikko boo xamante ne les pays occidentaux yi ñoo ko am xam ne l'islam dafa radical maanaam joxul jigéen liberté l'islam mànduwul système boobu idéologie boo xam ne tey boo xoolee ñun mu ngi dugg ci suñu suñu jamono bi tey kon la ma bëgg a wax rek pour ak grosso modo pour mën a am maanaam nekkin boo xamante ne dund boo xamante ne dafay pook dund bi nga xamante moom la yàlla bëgg moom la yonent bi sallam gëm fekk ñu si alquran ak sunna waaw macha allah oustaz Cheikh si réponse bi nga joxee am na solo. kon buñ déggee ci li nga wax kon xale yi faw ñu yaru faw ñu dellu ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon oustaz ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax kon taxayuraat bi am moom faw ñu dellu ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee ñu doog a mën a régler problème boobu kon bu ko defee dañuy jox oustaz daawda mu jox ñu lenn ci ay temps li xaatam kon oustaz bismillah. waaw bismillahir ñu ngi lay ziyaaraat. xanaa liñ si dolli du bëri ndax daanaka oustaz Cheikh wax na lépp daanaka comme ni mu ko waxee rek maanaam suñ bëggee maanaam problème yiñ nekk problème des jeunesse yi ñu nekk yëpp maanaam il faut ñu dellu si njàngaleem yonente bi maanaam waajur yi ñu ñu seetaat si seen doom yi liñ nekk ñu xoolaat bu baax a baax seen doom yi li ñuy dugg ñu xam ko lu ñu nee ñu xam ko école yi tamit maanaam ñu ñu concentré wu bu baax a baax xale yi fi ñuy nekk. xale yi suñ jógee si kër yi si école yi la ñuy dugaat ni ñuy jàngee waajur yi xale yi tamit suñ jógee si école yi ñëwaat ñu xool li ñuy jàng fan la ñu jaar ñu wàcc fan la ñu jaar est-ce que heure bi waroon na leen fekk si yoon bi wala waru leen a fekk ñuy yor yar xale yi bu baax a baax ndax maanaam yar moom si ngay amee lépp te ñàkk ko tamit si ngay perte lépp daanaka loolu moom bokk na si si gën a teel te tamit état bi taxaw taxaw taxaw maanaam jeunesse bi bu baax a baax taxaw leen ci wàllu njàng mu jàppale jàng jàngalekat yi mu jàppale leen bu baax mu jox leen seen àq ndax daanaka jàngalekat bi ñoom maanaam xiima bi ñu war a am lool amuñu ko ndax li fu baax tey ñoom ñoo ko baaxal ku fi nekk ingénieur ñoom ñoo la defar ku fi nekk politicien ñoom ñoo la defar ku fi nekk médecin ñoo la defar ak yeneen yeneen yu mel noonu loolu moo tax ñoom il faut ñi ñu ñu ñu encadrer leen bu baax a baax si seen wàllu madiya ak si wàllu lépp daal ba ñu mun concentrer bu baax si njàng mi ñu jàngale ñoom tamit xale yi ni war waajur yi tamit ñu toppatoo seen doom yi ñu tegu si wa kaw alxuraan ak sunna ñu bañ kaa wàcc ñu leen di yar bu baax a baax xanaa loolu kese lañ si doon dolli asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw oh, macha allah oustaz Daouda ci li nga réponse bi nga joxe am na solo kon bu ñu déggee bu baax ci say wax kon parents yi faaw ñu yaraat seen njaboot bu baax a baax di leen contrôler même ba ci école bi ñu xool naka lañ fay doxalee ndax loolu lépp ñoom seen responsabilité la ñoom ñoo war a yar jeunesse bi ndax yar moom boo ko amee am nga lépp boo ko amul ñàkk nga lépp comme ni nga ko waxee léegi kon li ñuy lancé mooy euh, parents yi ñu gën a joxaat gëdd ñu gën a yaraat seen njaboot bu baax a baax a baax pour xam ni ñoom ëllëg ñooy doon ndawi réew mi kon bu ko defee dañ leen di jaajëfal bu baax kon xam naa dañuy jëkkante ak waxtu bi rek yemale fii émission bi ba beneen yoon incha allah ci suñ yeneen invité di remercier suñ caméraman yi nga xam ni ñoom ñooñu nekkoon ak ñun ci émission bi kon bu ko defee dañuy jox aussage Cheikh Baba mu joxe kàddu bu mujj kon oustaz bisimilah. Euh, alhamdulilah xanaa santat yàlla di amat mbégte ak kontante si daje ki yéen di waxtaanee si lu waaj lu ajju si wàllu société bi rawatina si wàllu ndaw ndax kuy wax ak yéen daanaka mm, ndaw la kon loolu dañuy am mbégte si loolu di ko am kontante di ñaanal sud bi. dina xam la ngeen bëgg yal na leen ko yàlla dofal yàlla mën na ko yàlla am na ko yàlla sañ na ko yàlla nag ko yàlla dof toog ba mu nekk télévision boo xamante ne bu mag la tasaaroo si àdduna bi yëpp ñëpp di si jëriñoo yàlla mën na loolu yàlla na yàlla daf di kontaan nag si Alassane bu baax ak suñu mbokk cameraman yi nga xamante ne def nañ la pour émission bi mën a jàll kon loolu di kontaan si mbokk bi sëñ Dawda di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam bu baax di rafetlu kàddoom yi tamit yoo xam ne sànni na ko fii di wax ni in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah waaw macha allah oustaz kon bu ko defee dañuy jox Dawda mu waaw euh, di tàggatoo si ay kàddu rek ñu ngi sant mbokk yëpp maanaam Cheikh Alassane ñoo ngi lay sant bu baax a baax ngi sant tamit euh, Cheikh Diouf ak euh, waa site bi yëpp ñu ngi leen sant leen ñaanal maanaam yàlla defal leen ci liñ bëgg li kawe seen njort yàlla yóbbu leen ba fiñ ñu bëgg jëm yëpp ñu romb fa si barke alquranul karim suma salaatu wasalaamu ala asrafil xalqi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waaw macha allah oustaz Daouda si tàggatoo bi am na solo ñu ngi leen di remercier bu baax ci invitation bi ndax invité leen nit rek mu ñëw dafa yombul ngeen ànd ak ñun émission bi kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax kon bu ko defee de ñu leen di fàttali ba tey ngeen bës seen cloche de notification pour ngeen mën a abonné ci 28 pro lépp loo xam ni day daw ci biir kër gi ngeen man ko am kon ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah